asalaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd euh, rajo bi euh, di Rewmi FM Dakar quatre-vingt-dix-sept point cinq rawatina seen émission sociale toute la ville en parle tey jii euh, seen émission sociale toute la ville en parle dalal Roqiatou Gassama nekk présidente bu conseil sénégalais des femmes présidente bu collectif des victimes et de victimes de violences électorales nekk tamit présidente bu cadre de réflexion et d'action les violences politiques ñu daal di di fas yéene waxtaani ay question euh, d' yi nga xamante ni actuellement mu occupé actualité bi euh, li dinañ waxtaane euh, société civile ci boppam rôle société civile fii ci Sénégal droit des femmes parce que nag ñu ngi ci mois de mars ba léegi te xam ngeen ni mois de mars moom mooy le mois de la femme wala des femmes plutôt tamit daañu wax kon ci àq ak yelleefu jigéen ñi fii ci Sénégal violence conjugale autonomisation des femmes criminalité bi nga xamante ni fi ñu toll ni gis nañ euh, saa su ne mi ngi yokk file ci Sénégal bavure policière yi euh, criminalisation wu viole wàllum démocratie tamit tolluwaay bi file ci Sénégal ak tamit pandémie bi nga xamante ni euh, fi ñu toll nii dafa lëmbe àdduna bi di coronavirus fi ñu toll ni nag actuellement mi ngi file ci Sénégal gis ngeen cas yi ak évolution bi mi ngi am depuis cette semaine daa ñu ko waxtaane ak suñu invité bi lay di Roqiyatu Gassama ñu koy nuyu di ko dalal jàmm maa ngi leen di nuyu madame Moreau di euh, rafetal euh, rafetal jotaay bi Euh, am na habitude di ñëw ci seen i émission xëy na xaw na gëj rek mais maa ngi nuyu auditeurs yi yëpp mhm. ak seen technicien yi nekk fii ci rajo bi voilà euh, tey jii nga nekk présidente bu conseil sénégalais des femmes en tout cas ñu lay remercier mhm. si sa te xam naa jot bi bariwul mhm. euh, donc ñu ngi lay remercier bu baax a baax nga nekk présidente bu conseil sénégalais des femmes lan lañ mën a dégg ci conseil sénégalais des femmes ak kuréel gi lan moo ko tax a jóg exactement alors conseil sénégalais des femmes benn kuréel la bi nga xam ne mi ngi juttu 1995. Mhm. mais lii ko lii ko yëkkati. Mhm. depuis 94. bi nga xam ne ci la ñu teg ñaari journée de réflexion yi nga xam ne euh, bu bu jëkk ki ñu doon wax Babacar Sine mhm. euh, ak sunuy partenaire ak organisation jigéen ñeek euh, femme leader u Sénégal ñu wax ne vraiment war nañu taxaw seet ba xam lu tax jigéen ñi nekkuñu ci fi ñuy dogalee ak fi ñuy noccee donc loolu moo ko tax a jóg. Mhm. Euh, ba nga xam ne bi ñu taxawalee kuréel bi quatre-vingt-quinze. Mhm. mu ëmb organisation wu jigéen yu bëri. Mhm. ëmb jigéen yi nga xam ne ñu ngi jógee ci politique yi nekk ci pouvoir bi wala nekk ci opposition bi ak euh, mouvement syndical yeeg universitaire yeeg ñëpp. bokk ne vraiment dañu war a euh, bokk ànd. réfléchir. ak impulsé dynamique bi nga xam ne mooy tax jigéen ñi war a bokk mhm. euh, bokk fi ñuy réfléchir bokk fi nga xam ne foofu la ñuy nasee foofu la ñuy noccee surtout ci instance de décision mhm. donc euh, bi ñu dawalee loolu mhm. ñu boole ñëpp ñu ànd euh, ku nekk génnee sa casquette politique teg fële ku nekk génnee sa casquette syndical teg ñu am benn orientation bi nga xam ne mooy tax bu nu xayma fi nga xam ne foofu la jigéen ñi nekk ci instance de décision yi mu nekk mm. ci parlement bi euh, assemblée nationale nekk ci gouvernement bi nekk ci institution yi ñu war a euh, ànd boole sunu doole pour xamal réew mi ak ñi ko ŋànk ne bu fekkee ne dañuy wax démocratie mm-hmm. jigéen ñi bu ñu bokkul rek mënuñu wax démocratie mm-hmm. jigéen ñi bu ñu leen bodd euh, boddee rek wañu waruñu mën a wax démocratie donc ci loolu moo tax ba COSEF conseil mhm. sénégalais des femmes jóg mhm. mu nekk kuréel bu am solo ci arsenalu société civile mhm. ci Sénégal organisation de femmes ci Sénégal ci sous région bi ak ci au niveau international xëy na dinaa ci ñëw bu ci kaname mais li ñu mën a jàpp rek mooy soo gisee changement am tey ci participation politique des femmes participation ci jigéen ñi euh, ci instance de décision COSEF nekk ni ci kanam lu bare bare. Mhm. mu lëkkaloo ak yeneen partenaires lëkkaloo ak yeneen organisation de la société civile. Mhm. donc tey mën nañu wax ne conseil sénégalais des femmes moo teg li nga xam ne moo tax euh, ñu am tey loi sur la parité. la soo waxee loi sur la parité lii tax ba euh, lim bi mën a tolloo ci jigéen ñi ak ci góor ñi. Mhm. fi ñuy dogalee. conseil sénégalais des femmes. lëkkaloo ak waaw non moom moo ko moom moo ko yëkkati. moom moo xeex loolu. lëkkaloo ak yeneen organisation tey foo taxaw ci àddina boo nee la loi sur la parité dañ la naan demal COSEF. Mm-hmm. foog foog ñu taxaw foofu sax ci mm-hmm. parité bi. parce que mm-hmm. ça pose toujours problème euh, le fait que yéen ko peut-être yéen a xeex tey jii. ba ñu àndi la loi sur la parité. mais ñu bari ñu ngi wax ni euh, loi boobu respecté wuñ ko surtout ci instance de décision yi fu ñu jëlee jigéen jël fu ñu jëlee góor plutôt jël fa jigéen ainsi de suite gis nañ ni euh, respecté wuñ ko parité bi daal dafa dafa des lan nga ñu ci mën a wax yow. toujours damay wax ne. Euh, c'est une réussite. Mm-hmm. damay jóge ci balaa ñuy wax loi bi xam nga combat wu jigéen ñi dafa gudd. Mm-hmm. du li nga xam ne dañu jékki-jékki rek mu am. Mm-hmm. dafa am yoon. dafa am fi ñu jaar dafa am jaar-jaar. jaar-jaar yooyu bi nu xayma faiblesse su participation wu jigéen ñi ci instance yi la ñu wax ne état Sénégal ñun dañu bëgg li nga xam ne mooy quota. quota bi ci instance yëpp ak ci instance politique yi. ñu commencé ci ñi nga xam ne ñoo ŋànk parti politique yi ci réew mi en 1992 période boobu nga xam ne ñu doon préparer ay élections. Mhm. ñu dem ci ñoom mhm. ñun COSEF. ñu dem ci ñoom puisque seen éléments yi ñoom c'est-à-dire que seen jigéen ñi ci COSEF la ñu bokk donc bi ñu demee ci ñoom la veille des élections bi ñu koy préparer ñu ne leen ñun de dañu bëgg pour ci seen list ngeen dugal ci takku bu bu am solo jëm ci vingt vingt cinq ba ci trente pour cent. Mm-hmm. bu jigéen ci seen liste. Mm-hmm. ñu ne ñu ñoom d'accord nañu ci loolu. bi ñu d'accordee ci loolu bi ñu demee élection. Mm-hmm. ñu gis ne résultat bi li ñu doon wax ak li am dafa wute. dafa donc résultat bi c'était vraiment presque nul. ñu continuer xalaat bi di continuer di liggéey continuer sensibilisation bi ñu ni dañu nekk ci dëkk bi nga xam ne. Euh, population bi dafa am yu ñu gëm. Mhm. mais dafa am yu ñu gëmul. donc ci loolu nan la ñuy liggéeyee ak population bi leader religieux yi leader coutumier yi. Mhm. ak leader politique yi pour ñu mën nangu comprendre ak nangu li nga xam ne. moom la ñu bëgg parce que suñu ko bëggee du pour jigéen ñi rek mais c'est pour la famille c'est pour la société c'est pour tout le monde alors donc léegi bi ñu defee noonu ñu jël ñi nga xam ne ñoom seen xel dafa màcc lool ci affaire u àq ak yelleef droit mm-hmm. ñu jël leen ñaari fan ñu ne leen ci ñaari fan yooyu dañu bëgg ñu échanger mm-hmm. ñu seet ba xam lan ngeen ñuy proposer comme modèle de loi mm-hmm. parce que jëm nañu jë laajte nañu quota mais quota bi ñu résultat léegi ñun li ñu bëgg mooy parité xoolal jógee quota xam nga il faut oser le faire jógee quota ñu ne bëggatuñu quota même suñu amul résultat dañuy dem directement ci parité mooy xaaj bi ah cinquante pour cent cinquante pour cent de femmes mm-hmm. donc ñu defal ñu benn modèle de loi bi nga xam ne projet boobu la ñu yóbbu woon avec toute la population sénégalaise jigéen ñi yëpp fépp dans les quatorze régions du Sénégal ñu ko yóbboo ci président bi mooy président Abdoulaye Wade euh, ki ñu giite woon à l'époque muy ay Mbodj mu nekkoon ministre de la de la femme mm-hmm. mu d'accord ci démarche bi bi mu d'accordé assemblée voté ko bi ñu ko voté Euh, 2007 xam nga dañu dawal tuuti euh, kii euh, comment on appelle encore euh, les poli ñu nekk ci biir parlement bi député yi am na ci jóg ñu ne loi boobu baaxul. Mm-hmm. dafa méngoowul ak suñu charte réew. ñu ñu annuler loi bi. ñu continuer waat xeex bi 2010 ñu vote loi bi 2011 ñu am décret d'application. Mm-hmm. après 2011 xam nga 2012 ñu am élection présidentielle. présidentielle bi ñu amee élection présidentielle. jóge ci élection présidentielle ñu dem ci élection législative yi élection législative yooyu mooy première application de la loi sur la parité mm-hmm. ñu ni loi bi dafa ne euh, li nga xam ne foofu la ñuy euh, def focus mm-hmm. mooy fi ñuy teg baaraam mooy fépp fi nga xam ne euh, wax nañu élection ak semi Euh, élection xaw ma ñu koy waxatee sax c'est-à-dire que la loi prend en charge mm-hmm. euh, en tout cas tout la euh, la la partie électorale et semi-électorale donc ñu ngi jëm ci élection yi mm-hmm. nañu appliquer loi bi suñu ko appliqué wul mm-hmm. parti bu appliqué wul loi bi rek du bokk ci élection yi donc ils avaient obligation d'avoir des listes paritaires. Hmm. képp ko euh, euh, deful cinquante hommes ah cinquante femmes doo bokk ci ah, élection déedéet doo ci hmm. bokk. Hmm. loi bi moom dafa sévéroon ci loolu te ñu tënk tënk parti politique yi ci loolu ba nga xam ne dañu accepter loolu. mais bu ñu demee ba ñu joxe résultat yi dafa am pàcc yu bari yi nga xam ne. Euh, moo xëj na xaw a gàllankoor li tax ba amuñu cinquante mais tey damay wax ne. Mhm. man damay def conférence au niveau international. Mhm. di partager li nga xam ne. Mhm. moom la ñu am comme acquis. c'est-à-dire que moom la jigéen ñi am comme acquis. ba tax ba nit ñi jógee bitim réew ak Afrique di ñëw seet nan la ñu ñun amee réussite boobu ban yoon la ñu jaar ñoom ñu mën a sukkandiku ci loolu pour mën a def loolu seen seen dëkk. alors donc euh, résultat yi man dama ne toujours li ñuy wax en français je ne crache dans la soupe c'est-à-dire que résultat yi ñu am mm-hmm. bu du loon la loi sur la parité duñ ko am parce que ñu ngi jóge woon ci peut-être ñaar fukki jigéen ci parlement bi dem nañu ba xaw lim bi dem ba ëpp ñeent fukk mm-hmm. ñeent fukk mu xaw a dab dabal ñeent fukk ak ñaar ñeent fukk ak ñett je pense que loolu avancé bu mag a mag la mm-hmm. ci territoire yi également am nañ fa avancé bu mag mag a mag donc lii nga xam ne am na yi nga xam ne am nañ ci gàllankoor dañu ko gëstu mm-hmm. ñu teg ci baaraam ñu ne lii boo gisee mu am gàllankoor li ko junj lii la donc prochaine élection yi mm-hmm. dañuy def mobilisation taxawaat ba nga xam ne pour ñu respecter ko entièrement mais résultat yu ñu am tey mm-hmm. du résultat yu tuuti maa ngi la doon wax ci njalbeen ne euh, COSEF euh, lii nga xam ne moom la góor ñi Euh, yëkkati woon du ñëpp mais ñu bëri dañu wax ne euh, soo gisee euh, ñoom d'accorduñu ci affaire loi sur la parité ba résultat yu ñu ci am c'est que jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci biir conseil yi walla ci biir parlement bi amuñu expérience amuñu benn kii xamuñu sax seen mission mm-hmm. ñu ngi d'accord su fekkee ne loolu la ñun jaral nañu ñu wut ay partenaires. Mm-hmm. pour renforcer capacité jigéen yooyu te loolu la ñuy def au niveau de plusieurs territoires. Mm-hmm. au niveau national. Mm-hmm. c'est-à-dire que dañu rassembler jigéen ñi nga xam ne ce sont des élus ñu wut ay partenaires yi ñuy jàppale financièrement ñu dem jàngat li nga xam ne mooy seeni mbébét ci biir conseil yi ñu laaj leen li nga xam ne loolu la ñu bëgg pour que seen mission gën a yëkkatiku. seen mission ba gën a méngoo ak li nga xam ne moom la ñu teg comme charte. Mm-hmm. ñu ne ñu ñun sunu euh, comment on appelle sunu mission dafa am yu nga xam ne xamuñu ko torop. Mm-hmm. ñu ne leen d'accord loolu nañ leen ci former am na ñi nga xam ne ñu ni ñu communication bi c'est-à-dire que bu ñu con bu conseil amee. Mm-hmm. ñoom dañuy ragal sax wax parce que ñu wax ñu wax ñu ne d'accord donc loolu aussi dinañ leen ci renforcer. ci communication bi. ñu ne ñu am na li nga xam ne également am nañ ci gàllankoor mooy soo ko seetloo bu ñuy def budget municipalité bi ñun li ci budget yooyu yëpp xamuñu ko comprendre ñu ko voilà voilà processus budgétaire yi comprendre ñu ko ñu leen d'accord dañu teg foofu baaraam dinañu wut ay experts yi nga xam ne dinañ leen former ci loolu la ñu nekk ba résultat yi nga xam ne am nañ ko tey résultat yu takku la xam nañu li nga xam ne budget bi Euh, nan lañ koy defee euh, ba ñu am ay résultats mais euh, teg nañu aussi li ñuy wax cadre de concertation cadre de concertation yi mooy ëmb population bi yëpp mm-hmm. muy jeunes yi muy jigéen ñi muy góor ñi muy autorités religieuses yi société civile ñëpp parti politique yi ñëpp bokk ci cadre boobu donc cadre boobu ci kuréel yi ci kii yi ci quartier yi day tax ba ñu xayma li nga xam ne mooy priorité wu mbébét ci population bi mhm. sunu ko xayma ba pare dafa am yoon wi nga xam ne ci lañ koy teg ba mu yegg ci conseil bi ñu ne ah ñun de suñu gox lii mooy suñu priorité mhm. amuñu ndox accès à l'eau potable amuñu ko ñu dugal ñu ni amuñu am nañu problème électrification loolu xam nga ak communes yi la mhm. amuñu am nañu problème kii euh, euh, gestion déchets mm-hmm. am nañu problème école wala am nañu problème yi toilette ci école yi donc priorité yooyu population ci boppam ñoom ñoo koy xam xayma ñu euh, discuter ak ñoom ci bu ñu jógee ci formation bi ñu teg kuréel boobu nga xam ne foofu mbëbët yi yëpp foofu la ñu koy saytoo. Hmm. balaay muy yéeg ci ci ci conseil bi. voilà léegi ci autonomisation des femmes foog ñu wax ci tuuti parce que c'est le mois de la femme bala ñuy jàll ci yeneen euh, point d'actualité yi autonomisation des femmes euh, lan nga ci mën a wax euh, maanaam pour jigéen ñi mën a demal seen bopp bañ a dépendre ci góor ñi tamit am sax góor ñuy wax ni fi ñu toll nii maanaam faveur yi ñu jox jigéen ñëpp Sénégal bu ñu moytuwul dañuy jël jigéen ñi teg ci kaw. góor ñi est-ce que d'accord nga ci par rapport ak droit des femmes euh, mois de la femme 8 mars ainsi de suite perception bi nga xamante ni yenn góor yi ci la ñu am si bu ñuy wax àq ak yelleefu jigéen ñi. dama lay jox benn exemple. Mhm. pour -hmm. pour li nga wax ni te mu am solo lool. Mhm. bi ma nekkee xale euh, nekk tout tànk bu ndaw. Mhm. sama yaay li ma jëkk wax mooy liñ la sant mooy jàng. ñaareel bi il faut que soo jàngee. priorité numéro un mooy nga fexe ba am liggéey mm-hmm. que nga bañ dépendre ci kenn mm-hmm. donc xam nga autonomisation ñoo ngi koy commencer ci éducation du rek dañuy wax autonomisation na comme ça ci éducation de base bi nga xam ne dañuy parents yi dañuy valoriser góor ñi xalil góor yi ñu jur mm-hmm. ak euh, ñu jigéen ñi wax ne li nga xam ne moo gën a am solo ci société mooy nga nekk góor walla nga nekk jigéen war nga fexe ba mënal sa bopp war bañ di dépendre toujours ci keneen mhm. muy góor muy keneen mhm. muy sa sa naatango liberté boobu nga am euh, indépendance économique boobu nga am dañu ko war a di jàngal xale yi depuis le bas âge mhm. ci bu ñu commencé euh, absolument sept ans huit ans neuf ans dix ans absolument c'est la base de l'éducation foofu Euh, du dañuy dem ba màgg rek ñu ne war ngeen nekk autonome. Mhm. c'est quoi ça veut dire que dafa am partie bi nga xam ne bàyyi nañ ko. gis nga loolu man daf ma topp ba ma màgg ba nga xam ne. Mhm. tey jii nii li nga xam ne moom lay yedd xale yi toujours. ma ne mhm. leen mënu leen nekk fii di damay xaar sama. far jox ma. li may jëndee yëre. li may jëndee dàll li may jëndee la. walla nga xaar sama sa borom kër. même boo yoree parfois léeg-léeg dinañu yor xaalis mais mm-hmm. toujours on attend du mari mm-hmm. que moom mu jël en charge tout je dis non euh, jigéen euh, dafa war a xam ne euh, moom li koy gën a may sac ak li nga xam ne moo koy gën a may doole ci société mm-hmm. autonomisation daf cee bokk daf cee bokk ma ñëw ci sa question bi parce que da nga wax ni góor ñi dañuy wax ne peut-être que. fi ñu toll voilà waa politique bi ñu teg mooy jël jigéen ñi teg ci kaw góor ñi. loolu foofu la ñu fañ la ñu. non je, je non c'est peut-être que loolu seen perception ñoom. Mm-hmm. Euh, nañu xam ne jigéen ñi dafa am li ñuy wax ni gap c'est-à-dire que euh, jigéen ñi teelu ñu dugg torop en tout cas masse bu am importance bi. Mm-hmm. teelu ñu dugg torop ci politique. am amoon na gaa bu dee Sénégal amoon na ay figures yi nga xam ne mën nañ leen tudd tey mm-hmm. mais euh, sunu éducation may ñu woon torop ñuy dugg torop ci politique mm-hmm. sunu éducation daf ñu mayoon lépp li nga xam ne dañu koy def ak lépp li nga xam ne dañu koy xalaat sax day jóge ci góor ni mm-hmm. mais ñuy dem àddina di dox ba nga xam ne gis nañu ne soo tegee góor nga teg jigéen ci lay am force ci lay am ci lay am force ci ngeen di mën a construire seeni vie ci ngeen di mën a yar seeni doom parce que góor bi rek mënta yore euh, famille bi yore ak jafe-jafe yi nga xam ne moom la ñu xam ci réew mi mhm. waaw ci réew mi ak ci yeneeni réew économiquement c'est très dur mais économiquement les femmes aussi sont en train de se battre ñoo xam ne lii benn poste rek benn loxo rek mënta yore dëkk bi walla mënta yore famille bi walla mënta yore parce que sunu système euh, sociale mhm. euh, benn loxo bi yor sa famille boobu mhm. dafa yor beneen famille c'est-à-dire que fii sa sa yaay ak sa pap mhm. ñoom i tamit il faut nga toppaloo leen sa frère yeeg sa kii yeeg sa oncle yi dafa metti donc il faut que góor ñi comprendre ñu bari comprendre nañ ko il faut que góor ñi comprendre que ñun jigéen ñi su fekkee ne dañu bëgg am cette autonomisation c'est pour vraiment jàppale ah, borom kër voilà jàppale leen ba pare ñu nekk ensemble qu'on travaille ensemble mm. mais ci loolu la ñun euh, conseil sénégalais des femmes quand on parle d'autonomisation beneen définition lañ koy jox cest a dire que euh, ñun amuñu ay euh, nekkuñu kuréel bi nga xam ne day joxe xaalis pour permettre aux femmes mm-hmm. de de travailler pour qu'elles soit indépendantes économiquement mm. mais ñun ñu ngi ko jaaree ci àq ak yelleef c'est-à-dire que hmm. euh, droit la hmm. loolu droit la euh, bi nga xam ne dañuy sensibiliser former jigéen ñi pour ne leen économiquement vous devez être solide hmm. économiquement voilà si vous êtes euh, solide ce que ça peut donner comme résultat ñu orienté leen suñ leen euh, jàngatee kii lu mu te formé leen formé ba pare ñu jox leen kuréel yi nga xam ne ñoom seen liggéey mooy euh, vraiment jàppale leen financièrement pour ñu def seen maraîchage pour ñu def seen i commerce pour ñu ubbi seen i école pour et cetera mun a demal seen bopp voilà mais tamit beneen aspect gis nañ ni bu ñu waxee wàllum parité euh, peut-être benn aspect rek moo ci intéressé góoru sénégalais yi d'une mm. manière général moom mooy ah yéen a woote parité euh, kër gaa ngi nii su ma fayee ndox nga fay courant wala location bi damay joxe cinquante nga joxe cinquante su ma resee lii nga res lii ainsi de suite maanaam ñoom da daan nañ may sax jigéen ñu toog mais léegi dañ naan yéen a woote parité kon taxaw leen ñun ñu toog insi de suite naka nga gisee aspect boobu alors peut-être est-ce que parité réellement moom mooy ci biir kër gi su jigéen bi fayee ndox kii fay courant insi de suite parité bi yeggul foofu. en tout mm. cas parité bi ñu am Sénégal. Mm-hmm. yeggul foofu mu ngi mm-hmm. yem ci niveau politique. mu niveau politique niveau politique la yem. c'est-à-dire que su fekkee ne institution yi comme assemblée nationale. Mm-hmm. Euh, bu ñu ci amee par exemple cent cinquante. Euh, députés. Euh, xaaj bi. góor lay doon beneen xaaj bi nekk ay jigéen. parce que dañu gis ne su fekkee ne ci instance yooyu Euh, li mu jigéen ñi dafa néew torop mhm. euh, question yi nga xam ne moo concerne jigéen ñi góor ñi duñ ko xam pour mën ko porter mhm. su fekkee ne loi agsi na par mhm. exemple ci domaine u santé su ñu jëlee ci domaine u santé am na li nga xam ne jigéen rek a ko xam jigéen rek moo koy vivre bu fekkee ne loi yi agsi na te jigéen ñi barewuñu tu mën a mën a bokk ensemble euh, wax ne ah partie bii de soxal nañu ñun jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci euh, gox goxaan yu sori yi war a soxla euh, maternité wala soxla centre de santé bu équipé war a soxla ay yoon yi nga xam ne yoon la yi nga xam ne suñuy dem di euh, ami doom ci centre de santé yi ñu kii nekk yoon yu baax mm-hmm. parce que généralement dañuy nekk ci ay charrette mm-hmm. wala nekk ci ay vélo te loolu day impacté ci sunu santé ak impacté ci santé wu doom bi nga xam ne moo nekk sunu biir mm-hmm. donc loolu góor ni question spécifique yooyu xëj na duñu ko xam mhm. ci biir euh, maternité bi également jigéen moo xam lan lay vivre ci biir mhm. su fekkee ne plateau technique bi c'est adéquat baax na mhm. moom moo koy xam su fekkee ne lal bi nga xam ne moom lañ ko teg pour mu am doom baaxul euh, wala amul darab wala amul euh, outil nécessaire yi nga xam ne dina am protection sanitaire bu war moom moo koy xam parce que jigéen góor ñi duñu dugg ci biir donc suñu ne euh, vraiment dañu soxla jigéen lim bu takku mhm. loolu la parité bi doon di xeex lim bu takku ci institution bi loolu loolu moo ko tax a jóg loolu moo ko tax a jóg parité loolu moo tax a jóg parité mhm. mais parité duggul ci kër yi mhm. xam naa ne ñun bi ñuy def sensibilisation dans les régions Euh, fekk voté nañu parité ba pare. Mm effectivement femmes yi nee nañu ñu bari nee nañu vraiment affaire parité bi sonal nañu mhm. si biir kër yi parce que sunu jëkkër yi mhm. Mhm. nangootuñu joxe dépense wala sunu joxe tey ëllëg du ñu joxe am ñi nga xam ne dañu ne lépp li nga xam ne yëkkati nañ ko rek góor ñi dañ leen di tegal à côté parité léegi parité la léegi parité alors que loolu c'est une organisation sociale parité bi yeggul foofu dëgg neex yàlla sensibiliser nañu bu baax a baax a baax ci loolu mm-hmm. ni leen parité bi yeggul ci biir kër yi mm-hmm. ci parité mu yem au niveau politique au niveau de l'accès des femmes des aux instances de décision foofu la yem kon leer na euh, tey ji tamit euh, Rokhayatu Gassama daañu la laaj ci Euh, criminalisation du viol mu nekkoon beneen combat boo xamante ni euh, droit de l'homme ici wala militant des droits de l'homme féministe ainsi de suite porté nañ ko euh, naka nga gisee criminalisation du viole encore góor ñi encore di ko di ko di ko waat mais gis nañ tamit affaire viole yi bari na ainsi de suite ban ban xalaat nga lan mooy ci sa xalaat ci criminalisation du du viole jigéen la mhm. yaay la mhm. tante la Euh, comme on dit mun naa ne am naa aussi mhm. sët mhm. ak yooyu donc je pense que question boobu dafa nekk question bi nga xam ne bu nu ko yëkkatee sax xol yi dañuy xaw a yëkkatiku mhm. non seulement xol yi dañuy yëkkatiku ma day xol yi day tooy parce que gis nañu ne vraiment euh, lii nga xam ne moom la tuutanke yi di subir li jigéen ñi di subir Euh, tuutànke yi su ma ne tuutànke yi xale yu ndaw yu jigéen yi mhm. ak euh, ñi mag ñi adolescentes yi ak ñeneen ñi li ñuy subir comme euh, violence mhm. physique ak euh, violence psychologique mhm. euh, ba ci jëm ci meurtre cas bi bërki démb rek xam nañ ko Thiès metti na lool lool lool lool metti na ba fu metti yem moo tax jigéen ñi Sénégal lëkkaloo organisation yi lëkkaloo amoon na gaa li nga xam ne moom la ñuy wax comité de lutte contre les violences faites au femmes faites aux femmes ñun ko sef ak ñeneen ñetti organisation ñun ñoo ko créer mm-hmm. boobu temps affaire u dokk yi ñes lañ doon wax biñ ko dóoree ba rey ko mm-hmm. ñu nekk def mobilisation générale au niveau de de de, de Dakar pour ak Kaolack pour dàq loolu ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw ñaaw bi nga xam ne acte boobu amoon na mm-hmm. léegi ñu continuer di xeex ci commité boobu di ci am quelques mm-hmm. résultats quelquefois mm-hmm. non ñu dem ba nga xam ne en deux mille dix-neuf bi euh, ñu créer la la synergie des organisations de femmes yi nga xam ne dañuy xeex ci violence basée sur le genre ñu xeex ak ministère euh, de la famille ministère de la justice pour pour vraiment proposer une loi mm-hmm. buy criminaliser le viol et la pédophilie parce que dañu seetlu ne dafa bari dafa tar dafa mm-hmm. tar mm-hmm. donc pr président de la république nangu loolu bokk ci xeex bi ba ñu am loolu ba am ko tey bi ñu mm. ko amee soo jàngatee société bi dafa mel ni dafa mel ni dafa gën a tar euh, vraiment euh, ñoo ngi yëkkati di yëkkati di sensibiliser parce que loolu aussi am na solo euh, sensibilisation bi nga xam ne moom la ñu war a def tout le temps mm. ci population bi ba pare teg ay daan moom la kii bi wax xam nga bu ñu criminaliser benn mm. ak dafa mel ni dafa fekk mu am ñawteef bu mm. ko lal mm. te ñi nga xam ne ñooy juge yi am preuve yu doy ñu ni mm. kii moo def lii sanction bi loi bi wax mooy crime la donc crime bi mën nga ko tëdd sa duur yi diiru dund eh, donc sensibilisation bi dañ ko war a di yokk vraiment parce est-ce que socialement ñoo ngi ci. Mm-hmm. ñoo ngi ci au niveau au niveau national. Mm-hmm. ñoo ngi ci di sensibiliser pour actuellement li nekk ci viol. absolument mm-hmm. ñoo ngi ci mais il faut euh, ministère de la famille loolu aussi moo ko tax a jóg. donc euh, ci ay mission loolu ci la bokk parce que moo tax ñu lëkkaloog moom bu baax lëkkaloog ministère de la justice comme ni ma la ko waxee sànq sensibilisation bi. ñoo ngi ci doyul de parce que. tous les jours que Dieu fait mm. na nga seet ci deux mille deux mille euh, vingt bi rek. Mm. deux mille dix neuf deux mille vingt au mois am nañu vingt cas de xam nga loolu loolu dafa dafa dafa doy waar dafa doy kéemaane. Mm-hmm. criminalité dafa dafa doy kéemaane loolu jigéen ñi. jigéen ñi moom mm. lay wax jëm ci jigéen ñi góor ñi c'est très très très peu mais jigéen ñi te xam nga euh, il faut que ñu jàngat ci sunu société. Mm-hmm. lan mooy source su violence yooyu. voilà exactement. source su violence yi l'acte acte bi mooy boo demee ba rey toujours dafa am li tax nga def li tax nga rey li tax nga def ko lu tax sunu société bi violent noonu mhm. loolu lañu war a jàngat c'est une question mmh. question importante parce que si jàngat yi nga xam ne ñoom la moom la ñu jot def pauvreté bi nee nañu bokk na ci mhm. ñàkk liggéey bi chomage bi bokk na ci oisiveté bi nga xam ne defuñu dara toog rek Euh, di euh, toog ci ay euh, espace amuñu lu ñu def bokk na ci mais man ci li nga xam ne moom laa gën a jàngat hmm. éducation bi éducation bi éducation bi bokk na ci parce que man bi ma nekkee xale c'est rare ma dëgg yu demee noonu hmm. bari woon lu ñuy dégg ni faat nañ non non voilà non, non. c'était nga c'est très rare mën nga ko dégg toogaat dix ans sax ah doo ko dégg sax man hmm. daal fàttalikuwuma moment sama période yëpp puisque suma benn période fii laa ko defee mhm. beneen période bi yëpp bitim réew laa ko defee mhm. mais foofu laa ko doon sax gën a dégg parce mhm. que bi ma nekkee foofu jàngat yi nga xam ne ñun jàngat nañ ko ci affaire violence mais yu jëm sax ci xale yi foofu li fa daan am daawul am fii man déggu dégguma ko woon fii léegi est sax léegi fii moo presque moo ëpp mënuma joxe mënuma joxe chiffre parce que defuñu étude boobu yu génnee chiffre. mais par rapport ak suñu jàngat su waaw fee yi nga xam ne parce que le fait que les médias loolu moo gën a am solooti. Mm-hmm. parce que le rôle des médias est très important. Mm-hmm. parce que médias yi ñoom ñooy vulgariser ñoom ñooy jëli information bi diffuser ko pour que les gens puissent être informés. Mm-hmm. donc loolu am na solo mais éducation bi comme ni ma la ko waxee léegi madame Moreau. dafa am li nga xam ne. daf ñu rëcc rëcc mm-hmm. waaw tey xale yi dañu violent mais violence bi également comme ni ma ko waxee éducation mais facilité bi xale yi am léegi mm-hmm. ci naan facilité bi xale yi am léegi ci drogue ci tux yamba ainsi de suite di drogué wu mm-hmm. facilité par exemple la xam nga sachet yi doon nañ ko jaay ay salañ salañ jakarta lu ne dinañ ko jaay wala di facilité boobu ba tax ba sunu peuple bi toute une bonne partie de la jeunesse est addict mm -hmm. à ces drogues à euh, nu mu tuddee ti sax euh, euh, à ces à cet alcool mm loolu war nañ ci autorité yi bàyyi ci xel bu baax a baax a baax ñu jël ay matuwaay yu wóor parce que ñi koy jaay ça peut dans les boutiques ça peut être partout wax nañu sax ni xale yu ndaw yi ci boutique yi nekk à côté léeg-léeg dinañ mhm. ko jaay mhm. donc euh, vraiment à ce niveau-là il faut qu'on prenne l'État prenne ses dispositions vraiment toutes ses responsabilités nécessaires pour que yu mel noonu ñu xoolaat xale yi euh, ci jàngat bi nga xam ne moom la ñu am tey li nga xam ne mooy source violence yi dafa fekk xale yi dañuy addina euh, adonné wu ci li nga xam ne warul woon mm-hmm. bu jëkk comme ni ma ko waxee man duma daan dégg man su ma déggaan ñu daan naan mm-hmm. dafay nekk wala nga gis ku màndi ci mbedd mi di mm-hmm. romb drame lay nekk dafay waaw société daf leen di daf leen daf leen di jaaxal ñu bari sax dañ ko daan sànni xeer te pourtant nit ku normal la parce que loolu li tax ñu luy luy indi loolu mooy c'était une exception c'était vraiment une exception tey ce n'est pas une exception soo xoolee soo xoolee xale yi xaw ma ndax yoo gis nga xale yi ci biti <laughs> xale yi ci biti da nga naan ñoom ñëpp ils sont des drogués mhm. c'est pas possible c'est pas possible que l'alcool soit aussi accessible que la drogue soit aussi accessible la mauvaise drogue comme on dit xale yi dañuy jël. Euh, kii euh, kii di di di sniffé wu. Mm-hmm. tu c' est extraordinaire. loolu li muy jër muy violence yi. ñëw mooy li ñuy dund actuellement taux de loolu li muy jur mooy loolu parce que dafay dérégler ce système mental. Mm-hmm. su ko dérégler ba dara dootu la saf. xoolal. Mm-hmm. bu bërki démb bi. la personne a dit qu' il ne qu' elle ne regrette même pas ses actes. elle n' elle ne regrette pas. quand je dis elle la personne mais c'est le, le, mm-hmm. le monsieur ne ne regrette pas comment tu peux prendre une personne nga jël ren ko mm-hmm. ça c'est extraordinaire kooku nga xam ne xëy na àndul ak sagoom mm-hmm. li tax àndul ak sagoom lan la xëy na ci ginnaaw day tux day day day naan wala day drogué wu loolu yëpp mooy conséquence bi suñu population bi dañ ko war a jàngat dañu war a xool teg ay matuwaay yu leer état bi jël ay mesures mais famille aussi Mhm. famille yi aussi war nañu xoolaat éducation yi nga xam ne moom la ñuy jox xale yi xool xale bu nekk muy ku góor ku jigéen fi muy dugg da ko war a xam mhm. ñun dem nañu ba nekk jànq ba màgg mhm. foo fooy dem dañu famille yi dañ koy xam dañ koy xam foo dem dañ ko il faut nga joxe foo jëm te léegi c'est plus facile avec les portables mais avant on n'avait pas de portable tu n'avais même pas le droit amoo woon sax droit à une certaine heure ngay génn bu fekkee ne da nga bëgg a fecci sax à l'époque comme ñu baal mais da koy tàgg da ngay tàggoo pendant des jours et des jours ah. le jour J doo xam sax nit nañ la bàyyi wala déet te yu bari sax duñu nangu donc cette éducation là pourquoi on l'a perdue et les conséquences de ce manque d'éducation et de suivi ci xale yi vraiment war moo jur lépp et puis war nañ koo xoolaat bu baax. mi ngi noonu ñu ngi leen di fàttali yéen a ngi suivre seen émission sociale toute la ville en parle tey jii Ndeye Comba Moreau dalal Roqiyatou Gassama nekk présidente bu conseil sénégalais des femmes euh, présidente bu collectif des victimes et familles de victimes de violences électorales nekk tamit euh, bokk ci cadre de réflexion et d'action sur les violences politiques waxtu bi bareetul mais faaw ñu laaj la euh, ci question d'actualité bi di ci wàllum feebar bi la di di di coronavirus nga joxe ci sa xalaat euh, instant bi sax pandémie la lëmbee na àdduna au Sénégal on a plus de vingt cas euh, mu nekk lu doy wax à Dakar et à lan nga ci joxe ban xalaat nga ci joxe ak tamit peut-être yan suggestion ngay jox autorités yi pour ñu mën a contrôler feebar bi surtout fii ci Sénégal euh, alors que plateau médical bi ni mu demee gis nañu sax réew yi nga xamante ni ñoo ñu ëpp moyen foofu actuellement am nañ problème on a vu le cas d'Italie amee loolu am fii Sénégal euh, lan nga ci mën a wax pour ñu contrôler déjà euh, situation bi. xam nga bi bi ñu amee premier cas bi jógee bitim réew. Mhm. mu teg ci ñaareeli cas mu teg ci ba juróom ñu ne faj nañu euh, ñaari cas. Mhm. on avait de l'espoir hein, on se dit bon xëy na fa lay yem. fa lay yem ñooñu ci biti la ñu jógee ñii ko indi yëpp. Mhm. de toute façon ci biti la ñu jógee ñoom donc. cas bi nga xam ne moo gën a inquiétant mooy bu mujj bi moodu moodu bi et on voit la ramification bi jógee Italie mm-hmm. euh, on voit la ramification du caageen ne kenn ki ko am ci moom rek lay yem mm-hmm. mais ñi nga xam ne am nag ñoom contact mm-hmm. gis nañ ko ci famille am ñooñu am nañ ko léegi ñu doon xool euh, yeneen contact 71 cas yi nga xam ne am na ak ñoom euh, xëy na nuyu na leen walla waxtaan ak ñoom ñooñ yëpp état bi mi ngi leen di ministère la santé ak euh, Pasteur institut ñu koy seet ñu ngi koy léegi gis nañ ne joxe nañu résultat pour wax ne ñi nga xam ne ñoom ñoo ko recevoir euh, ci hôpital bi ñoo ñu aussi am nañ ko personnel de santé bi am nañ mm, ko mm. donc pour diir que euh, sénégalais yi il faut que ñu bàyyi xel mm. ci ne euh, cas bi sérieux c'est sérieux parce que souvent ñu ngi def ay comédie yu kenn xamul. waaw et dama jàpp nañu gisul. li am bitim waaw waaw je crois que euh, xëj na ñàkk xam. Mm-hmm. bokk na ci walla ñàkk bëgg xam. parce que du ñu nekk ci situation bi nga xam ne moom la ñu nekk ba arabi Saoudite di annuler sax aj mm-hmm. ñu xam ne c'est sérieux xam ne c'est sérieux France fi mu nekk nii tey tëj na école yëpp non seulement tëj na ko mais am na état yi nga xam ne ñu bëri bëgguñu sax recevoir français. Mhm. sooy nekk français du ñu du nangu sax nga dugg seen territoire. Mhm. Russie ci la bokk euh, euh, nu mu tuddati sax dëkk yu bare ci la ñu bokk. même Afrique fii am na dëkk yi nga xam ne comme ay Tchad ak yooyu ñoom mhm. Congo bëgguñu recevoir de ressortissants français te boo ko xoolee ci njalbeen ñoom i tamit amoon nañu problème ak Chine bëgguñu woon recevoir euh, chinois yi donc pour dire que affaire bi bu commencé benn dafay law dafay law li nga xam ne disposition yi nga xam ne moom la ministère jël tey di wax ne mm-hmm. euh, nañu fexe ba propreté bi ñu sàmm ko bu baax a baax waaw set bi ñu sàmm mm-hmm. ko bu baax a baax di raxasu te dafa am ñi ngi expliqué nañu ni ñuy mm-hmm. raxasoo euh, mais xam nga ñun sunu société dafa am ni mu tëddee sunu marché yi déjà proximité bi dafa bare euh, parce que marché ay marché public la ñu yor du forcément ay supermarché te cet gi tamit mooy loolu mi mm-hmm. te ba pare soo demee ci mbedd yi aussi regroupement yi dafa bari mm. donc de telle sorte que je pense que ba léegi population bi li nga xam ne moom la ministère ak autorité sénégalaise war a jël ñu ngi renforcer sensibilisation bi parce que ñu ngi leen di dégg ñuy wax et c'est c'est bien ils sont en train de bien travailler mm, mm. mais peut-être que ils devraient euh, prendre la responsabilité également ñu impliquer autorités religieuses yi nga xam ne nit ñi déglu na li dañuy déglu bu baax li ñuy wax mm-hmm. ñoom ñu nekk ay relais mm-hmm. ñu nekkee ay relais ci ci ci ci euh, seeni gox mm-hmm. ñu sensibiliser population bi pour ñu dégg lu ñuy wax parce que ñu bare je pense que ba léegi dañu woyofal mbir mi c'est pas pour fair peur mais c'est une question vraiment sérieuse te virus bi xamuñ ci ku weex xamul ku xonq mhm. xamul ku ñuul mhm. doon nañu wax ne virus bi bu see Afrique du du du mën a dund parce que mhm. température bi dafa loolu yëpp ay naxaate la amul loolu ay naxaate la il faut que population bi xam ne virus bi bàyyiwul kenn bàyyiwul kenn dugg na sunu réew ñaanuñu ko mais dugg na fi il faut qu'on soit réaliste. Mhm. du gën fi te bàyyi comédie bi surtout. waaw nañu bàyyi comédie bi ba pare di bàyyi aussi fausse information. yu ñuy joxe ci réseaux sociaux yi. ay lii koy faj ak lii amul mhm. amul ñoom suñu ko amoon dinañ ko def bu yàgg amul donc dama damay woote rek. Mhm. di wax ne euh, virus bi. am na gaa ñi muy rey xëy na euh, état bi ñoom rek ñoo mën a joxe chiffre ministère de la santé ñoom ñoo mën a joxe chiffre réel. Mhm. amul kenn ku ko mën a joxe. ñoom ñoom ñooy joxe aussi ay mesures. Mhm. ñi leen def leen nii def leen nii mais li ñuy def noonu aussi. de population bi ñun dañ ci bokk c'est-à-dire ñi nga xam ne mhm. euh, bu ñu waxee ñu déglu leen ñu yokk sensibilisation ba pare yokk quand au niveau de chaque région ñu mhm. seet nan la ñuy installer foofu des centres d'urgence centre d'urgence yooyu mhm. day tax ba nga xam ne comme ni ñu def Touba rek au mhm. lieu ñu indi cas yi encore ba Dakar exactement voilà nañu ko traité foofu waaw ba pare les rassemblements religieux ça mm c'est également je crois que euh, am na yi nga xam ne maintenir nañ ko en tout cas jusqu'à preuve du contraire dégguma fu ñu waxee ne annulé nañ ko euh, là c'est également la responsabilité de l'État du Sénégal pour que mu jël ay mesures sensibiliser les autorités religieuses sur le danger et la possible pro euh, propagation du virus mhm. parce que loolu ay rassemblements religieux la xam nga aussi am nañu suñuy ngénte yi mm. suñuy mariage yi mm. suñuy dëj yi loolu aussi tout ça c'est des question yi nga xam ne mm. au niveau sociétal yi nga xam ne état bi war na ci jël ay matuwaay tamit ku ne war nga ci dugal sa toujours waroo nekk sa kër rek nga ne man lii duma daal ainsi de suite non non non jàpp man mi wax ak yow yàlla nañu yàlla sàmm mais on n'est pas épargné personne n'est épargné personne ñu bañ a nag am na li nga xam ne euh, dama ko buggoon wax ma dama euh, c'est pas une honte d'aller se faire dépister mmh. c'est pas une honte aussi nga ni man de euh, kële am am na ko euh, dañu koy pes pestiféré la non mm-hmm. c'est-à-dire que yow mën nga jóg rek nga ne xaar ma dem dépister seet ba xam ba xam am naa wala awma awma loolu dana nekk ci est-ce que yi mi ngi fi te instant bi sax euh, gars yi bëri dañu ragal a dem ci hôpitaux yi non jumtukaay yaa ngi fi je pense pas mm. que. xam nga bon. ak ragal bi ñu ragal comme par exemple tey jii koo ne demal euh, hôpital fan dafay ragal parce que dana foofu la ñuy fajee ñu am corona. waaw mais hôpital Fann benn mm. partie la bi nga xam ne foofu la ñu def mettre en quarantaine les gens. Mm-hmm. du tout du tout l'hôpital de Fann est très grand service yi bari nañu man boo ma ne woon tey ma dem hôpital Fann damay jël sama oto dem fan léegi. Mm-hmm. pour dem bu fekkee ne am naa fa soxla bu fekkee ne dama war a dem dépister wu bu dee foofu la damay dem foofu. bu dee pasteur la ma dem pasteur donc amul dara li nga xam ne war nañ ko mën a ragal ci euh, structure sanitaire yi parce que je pense que mm. l'État du Sénégal le ministère de la santé a pris ses dispositions vraiment mm. Mm. pour encadrer loolu pour que ñooñu bañ a dugganteeg nit ñi parce que quand même xam nañu ne bu fekkee ne am na ñi nga xam ne mettre nañ leen en quarantaine quarantaine mooy fi nga xam ne nit ñi duñ fa dugg ñoom rekk fay nekk avec le personnel adéquat donc du ñi nga xam ne bu ñu nekkee ci hôpital bi dañ leen di bàyyi ñuy génn ñuy hmm, duggante ñeneen ñi non non non voilà dernière question parce mhm. que temps bi sax dab nañu euh, ñu laaj la am na ñuy wax ni société si société civile bi nga bokk mais euh, depuis euh, Macky Sall ñëw pratiquement sentiratuñ vraiment la société civile loo ciy tontu quelques secondes ñu tàggatoo ah non non ah, bon enfin je dis non parce que société man société civile laa bokk hmm. organisation de femmes donc ça veut dire que doo defuma politique mhm. et société civile bi mi ngi liggéey mu ngi liggéey ah oui coow li bareetul de comme au temps de Abdoulaye Wade bu amee lu ñu war a coow dañ ko coow mhm. bu amee lu ñu war a coow. Mhm. société civile bi coow. Mhm. dina coow. mais instant bi coowoo leen dara wala yéen da ngeen ànd ak ma le président Macky Sall wala. non no man mhm. man ànduma euh, benn parti politique. parce que je pense que kooko laaj ci Sénégal xam na loolu. man Rokhaya Touga sama dugguma ci benn parti. amoo carte APR sax awma dara ci <laughs> <laughs> musuma ko am xaw ma sax couleur xaw ma sax couleur maa ngi xam couleur parti yi. su may def observation électorale. parce que loolu aussi dama ci. Mm. dama koy def tout mais jege woo la président Sall wala madame la première dame du tout waaw mais société civile ni mu daan yëngu-yëngalee dafa dafa dafa comme lan mën na ma jox exemple non temps wu Ablaye Wade lañ ko gënoon sentir bari na waaw comme lan lan lañ doon def par exemple temps wu mm. Ablaye Wade waaw xam nga waaw ci man ci élection mille yi ci laa créé li nga xam ne mooy collectif de victimes et fa mm-hmm. famille de victimes mm-hmm. parce que élection 2000 yi dafa tàngoon te violent mm-hmm. donc ñu bari dégg nañ ma ci ci euh, ci dénoncer li nga xam ne mm-hmm. moo amoon te li ma ko li ma li ma wax dama ko adressé woon président Ablaye wax adressé ko président Macky Sall parce que enfin nekkatul woon avant nekkatul woon euh, comment on dit nekkagul woon président mais hmm. boobu temps candidat la woon ñaari candidat yi laa ko adressé woon adressé ko les force de sécurité adressé ko aussi les parti politiques voilà ñu bàyyi la nga tàggatoo maa ngi leen di remercier bu baax di hmm. leen euh, féliciter di wax ne c'est toujours euh, avec un grand plaisir que may ñëw di euh, tontu ci seen i question hmm. pour leeral askan wi en tout cas ci li nga xam ne man ci lay yëngu waaw ah, merci beaucoup en tout cas euh, kontaan nañ bu baax a baax xam nañ ni jot bi bare ah. bariwul mais à chaque fois da ngay répondre suñu invitation en tout cas waxtaan bi tamit am na solo ñu koy remercier bu baax a baax euh, Roqiyatu Gassama nekk présidente bu conseil sénégalais euh, des femmes nekk présidente bu collectif jotuñ se wax sax mais peut-être prochainement des victimes et familles de victimes de violences électorales bokk ci cadre de réflexion et d'action sur les violences politiques dialogue national tamit nangu woo ci wax <laughs> peut Casu Anto en tout cas ñuy remercie tamit suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures à 11 heures di remercier Mamadou Diaw Diallo ci wàllum technique bi Léon Paul Mendy ci réalisation bi émission bi mën ngeen ko suivraat euh, ci suñu site internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne euh, YouTube euh, Rewmi officiel kon ba samedi prochain incha allah ci beneen émission beneen thème ak beneen invité